aoudubillahi min sheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ni nu ko baaxoo defee at mu jot ci barab bu tedd bii ci weer wu tedd wii ci kanam kilifa yu tedd yi nga xam ne sëriñ ahmadul muxtaar mi nga xam ne mooy xalifab cheikh mohamadul moustapha ñuy ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te wéral ko te mottali ay naalam te ñu ànd ko ak moom waaye ci ndigalul alxalifatul am fatil taifatil muridiya a cheikh mouhamadinil muntaqa ayyadahu llahu wa nasara yàlla na ko sunu borom gën a yàggal gën koo wéral mottali naal yim naal yëpp te mu ànd kook jullit yëpp ànd kook taaliba yépp bu ngeen gisee jataay bii di ngeen xam ne la daan xew ci weer wii ci pàkk bu tedd bii muy Touba jege seeti na mu di màggaluk seexul Khadim gi ñuy defe fii ci Touba ci Daarul Xuddus ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke ni mu ko baaxoo defee rek ci waxtu woo xamee ne màggal gi jub si na sëriñ Ahmadu mi nga xam ne moo ko nekkal fii ci pàkk bu tedd bii ànd ak njabootu Cheikh Mouhamadul Moustapha gépp ànd tamit ak njabootuk cheikh Mouhamadul Amin Baare gépp waaye ànd tamit ak njabootuk Serigne tubaak gépp jataay bi niñ ko waxee Serigne Ahmadul Mokhtar mi ngi nii toog waaye Serigne Cheikh mbake gaynde moom Serigne Mbacke Madina mi ngi nii toog Serigne Cheikh Coro moom Serigne Bassirou Khoudia Dieng moom Cheikh Mouhamadul Amin mi ngi nii toog waaye Serigne Modou Baara moom Serigne Abdoul Khadim moom Cheikh Mouhamadul Amin mi ngi nii toog. ñoom it ñu toogal fii cheikh Mouhamadul Moustapha moom sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke mi nga xam ne mooy xalifab cheikh Mouhamadul Amin te it njabootu daarul xudduus ak guy mbind naka jekk ni ñu ànd rek lañ mas ànde dale ko ci cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci cheikh Mouhamadul Amin sëriñ Ousmane Mbacke moom sëriñ cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma mi ngi nii toog waaye itam sëriñ Baara Mbacke. moom sëriñ Dan Xariloo Mbàkke mi ngi nii toog sëriñ Abdul Ahad yitam itam moom sëriñ Aliyu Mbàkke moom sëriñ Mudu Musaa mi ngi nii toog waaye sëriñ Amsatu Mbàkke moom sëriñ Amar Fall Mbàkke ak soxna Daba Mbàkke moom Cheikh Mamadou Moustapha mi ngi nii toog ak magi taalibe yëpp ak daayira yëpp daayira yi nga xam ne ñoo aju ci kër gi nag suñ ci tuddee diiwaanul muriid gi nga xam ne sëriñ Ousmane Mbàkke moom sëriñ Cheikh Amadou Mbàkke moo ko jiite te yi aju ci Daaru Xuddus yëpp sos ci dana doy sëkk ngir ñu présenter daayira yi bis bi nag niñ ko xamee rek mooy ñaar fukki fan wala ñaar fukki guddi ci weeru tamxarit muy bis bi nga xam ne la ci la Cheikhul Khadim euh, ñibbisee woon ci dëkkam bii te taawam ba xalifaam ba a Cheikh Mouhamadul Moustapha indi woon ko fi ren jii nag di juróom-ñeent fukkeelu at ak juróom-ñeent bi sëriñ bi ñibbisee ci dëkk bi ba léegi mel ne déwén rek mooy téeméeri la at bi sëriñ bi joxe ndigal nag ngir nañ ko daan woote rek ñu woote ko woote bi itam niñ ko xamee e, màggal gi mi ngi tolloo ak juróom-benn fan ci mois d'août mille deux mille vingt waaye itam di tombeek fukki fan ak juróom-ñeent di ñaar fukkeelu guddi ci mille quatre cent cinq ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi leen sant ci wusi bi ngeen wusi si woote bi ngir leen fa dajale di tax ñu woote nag suñ Modou Bara mbokki julli di mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa maa ngi yëkkati sama kàddu ci ndigalul sun kilifa gi di bàyyi Ahmadul Maxtaar Mbakke ginnaaw bu mu diisoo ak ki fi nakkal Cheikh Ahmadou Bamba di cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jële ndigal ci moom ci woote li muy woote lan la waxtu wi ak barab bi <clears throat> ak jataay bi am na lum ci junj woote bi mooy bis bi nga xamante ni ci la cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi taala alayhi liggéey ba matoon ci njaareem mu joxoon ndigal taalibeem ba jëwriñam ja cheikh Mouhamadul Moustapha kam tarbiya ba doyloo ko ci kanamam ak ci ginnaawam ni ko waxtu woo xamante ni sunu borom dikk na akub dogalam Touba la Touba la googu nag Cheikh Mouhamadul Moustapha indi sëriñ bi Touba ci contexte bu jafe ngir ñett yi daje tubaab bi boobu ma nga fa te dëkk gi gënalu ko sëñ biit liggéey bi matewul fii ci dëkk bi njaareem la mu war koo jëlee njaareem itam indi Touba. ñett yooyu yi nag li mu laaj lépp ci xel ak ci taxawaay ak ci baatin ak ci yitte ak u yëg Cheikh Mouhamadoul Moustapha def na ci lu kawe njort ndax def na ko taxat dammul loolu nag dafa am lu muy màndargaal matuk Cheikh Mouhamadoul Moustapha ak bëggu sëñ Touba sëñ defar na ko ba mu mat ba doyloo ko bëggu sëñ Touba it day am ki ko dénkit mooy ku mu wóolu di Cheikh Mouhamadoul defal na ko ko nu kawe njortam gàggale ca yu bari nag yooye ba léegi nag noo koy gis bokkoon na ci mu wax ko ni ko waxtu wu liggéey bi àggee nga bu ma njaareem te xat dammul lépp lu leen songati dana daanu lu ngeen songet da ngeen ko daan kon nag loolu dafa doy ndam muy bis mu màgg boo xam ni sëriñ bi mi ci woo mbokki jullit yépp rawatina turuqu suufiye yi ndax ñoo bokk sañ Tuba mi ngi ciy soññi taalibe ndax seen bisub sëriñ la mi ngi koy fàttali bokk yi ndax seen seen bésu bopp la fàttali gi nag xam na ni dafay lu war waaye du lu nit ñi di fàtte mi ngi ame fii ci tuubaa bés bi di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru muharram bii ñu dugg ñu fanaane ko muy ñaar fukkeelu guddi ga Euh, war a tombe dajeeg juróom benn fan ci weeru tubaab weeru weeru août fii ci Touba euh, lu ne nag day am garab faw mu am fu mu sax bés bi fii la sax ci Daaru Xuddoos waaye ay caram nag day law ba daj fépp fu murit nekk ci biir réew mi ak bitim réew des na ko tudde màggalug Daaru Xuddoos ngir dàtt bi fii la waaye ni ñu bokke sëñ Touba baay Ahmadul Maxtaar nee na noonu la ñu bokke bés bi mi ngi koy fàttali bokk yi mu bokkal sëñ Touba yépp kenn ku nekk xam na cër ba nga ca am ak taxawaay ba nga ca am loola yëg na ko xam na ko mi soññi bu baax ñii mu bokkal Cheikh Mamadou Moustapha te yàlla teg ko ci kanam bopp njaboot gi buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Mbacké Madina tudd ci sëriñ Cheikh Aliou Mbacké tudd tudd ci sëriñ Abdourahman Mbacké bu sëñ Cheikh Ahmadou sëñ Cheikh Gaynde Fatma bu ci tuddee itam sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacké Mouhamed dana mën a yóbbaale ñi mu bokkal taxawaay ñëpp ci kër gi tudd gi nag xam na ni gënalu leen waaye ku jëf ni ko jëre jërëjëf wàññiwu ca dara dalal ngeen xelam ànd ngeen moom liggéey bi téeñal ngeen ko gàddul ngeen ko liggéey bi sagal ngeen ko ci loolu nag moom xam na ko yëg na ko te wóor na ko ti yàlla ak Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Ahmadou Bamba rek a tax ngeen di jëf ak sagal ko moom mii fi nekkal moom Mamadou Moustapha ngir bëgg koo wayafalal liggéey bi loolu xam na ko bu baax a baax kon nee na jërë ngeen jëfati ci loolu mi ngi soññi seex yi aju ci kër gi yëpp yéen yéenay matérielu liggéey bi matériel na kuy dem tool da ngay yóbbaale sa matériel jumtukaay kër cheikh Mouhamadul Moustapha mooy seex si aju ci kër gi ak taalibe yi ñu boot ak képp koo xam ne sa yaakaar ci Serigne Touba da nga koo jaarale cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi leen di fàttali li ñu bokk mi ngi koy fàttali bokkam yi mbokkal Serigne Touba yëpp ndax seen bésu bopp la. li ko tàmbalee dellusiwaat ci këru boppam gi wax na ko ba ci kër cheikh Mouhamadul Mourtada ñëpp mi ngi leen di soññi ci seen yëfi bopp seen yëfi bopp di soññi bokk yi yi nga xamante ni ay bokki sëñ bi lañ di kër maam Maharam li ci tàmbalee ci kër euh, maam moor Jaara ba ci kër sëñ euh, euh, sëñ Masamba loolu ñëpp mi ngi leen di fàttali bés bi mi ngi koy fàttali seex yi nga xam seen yaakaar jëpp ci yàlla dañ ko jaarale ci sëñ Touba ñu tàmbale li tàmbalee ci kër sëñ aadama Guèye ba ci kër sëriñ Aïssa Diène bàyyiwu ci kenn di fàttali itam bis bi njabootu Cheikh Ibra Fall ndax Cheikh Ibra day jumtukaay sëñ Tuba kon ñi ngi leen di fàttali bu baax bis bi xam nañ ni kenn fàttewu ko li ko ci gën a ñor gën ko cee yitteel nag te kenn fàttewu ko moo di njàngum alquranul karim ci na mu gën a bare te gën a sell toftal ci loo man ci xasaayit ci na mu gën a bare gën naa selle ak yu baax yi ci topp muy muy muy tawasulaat yi nga tawasulaat yi ci topp yépp moo xam ja dikrullah la salaatu ala nabi istixfaar yu am njariñ yooyu yi nga xam ni fu jullit nag rawatina taalib bi da ko war a taqoo sëñ bi nee na mi ngi koy fàttali ci bis bi te lu ci waay def na bari te na sell buñ noppee def ko addiyee si ahmadou bamba abdullahi wa xadimu rasulihi yéen njabootu kër gi sëñ bi nee na mi ngi fàttali wàccaayu bis bi ci yaatal gan ñi dalal leen li gan laaj lépp nañ ko fi fekk barab boo xam ni lañ lay woo boo fa fanaanee sunu boroom jéggal la say bàkkaar ba nga mel ni bis ba nga juddoo woon jar na wuy ji ñaareel ba barab boo xam ni boo fa balee lu mu tuuti tuuti baleeg boobu dana setal say bàkkaar ba nga mel ni bis ba nga juddoo woon jar naa dem bale ji nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bisum njariñ dafa mat a fonk ndax Cheikh Mamadou Moustapha al Karim wax na ni ñi doon indi sëñ bi ak ñi ko doon teeru waxtu wu bis bi dellusee dañuy ñëw fanaan fanaansiwaat ci dëkk bi di di di di di sëñ bi di sàkku barke ci moom di saafonte ak moom ñooñu nag képp ku bokk ak ñoom fanaan ci dëkk bi sunu borom mën na laa jéggal sëy bàkkaar te loolu jar na teewee dëkk liggéey bi bis bi kon sëñ bi mi ngi soññ ñëpp mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi woo jullit ñëpp mi ngi koy yëgal itam ki nekk ci boppu réew mi di président de la république am na cër ci moom am ab cër ci liggéey bi mi ngi ko koy fàttali ndax ñoo bokk réew mi bokk njaboot gi mi ngi koy fàttali itam mboolem autorité euh, yi nekk ci su ci ci ci région bi tàmbalee ko ci gouverneur ba ci nekk ci ronam ñëpp bàyyiwu ci kenn mi ngi koy fàttali itam di ci woo ñi nga xamante ni ñoo nekk ci kujje gi ndax ñoom itam doomi réew mi nag sëñ Tuubaa ñëpp la jaboote sëñ Tuubaa ñëpp la wóof sëñ Tuubaa ñëpp la amal njariñ kon bàyyiwul kenn boo yoree lu am njariñ di woote bis bu am njariñ dangay woo ñëpp du am xàjj ak seen. ñoo ngi yëkkati suñ kàddu ci turu njaboot gi turu njaboot gi ne suñ ko waxee mooy njabootu Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara waaye ci yëkkati kàddu nag ci turu sëriñ Moustapha mi nga xam ni mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara te nekkal la yow Baye Ahmadou ci sa njabootu bopp gi ci da Touba Guy Mbind ñu ñëw. Euh, ci sa wet euh, yëkkati kàddu ngir woote ci bis bi nga xam ni bis bu màgg la bis bi nga xam ni mooy bis bi gënaloon Cheikhul Khadim ci bis yi ndax moo ko ñaan yàlla suñu boroom waxoon ni suñu boroom maa ngi lay ñaan nga defal ma bis bi gën ci samay bis muy bis bi nga xam ne damay daje ak yow te bis bii la ku tedd ki daje woon ak boroomam euh, muy bis bu am solo ci yoonu murit ci lislaam waaye lépp tënku ak aju ci ndigalu sëñ Touba Cheikh Modou Mountakha ñu koy ñaanal yàlla guddal fanam may ko wér ba lépp lu mu sumboo liggéeyal lislaam suñ borom dimbali ko mu liggéeyal ko kon ñoo ngi woote ci turu njaboot gi ci turu njaboot Cheikhul Khadim gépp eh, ni ñu ko waxee nag ci njàlbéen gi bis la boo xam ne Cheikh Moustapha bi nga xam ni bi sëriñ bi wujjee boroomam moo ko jël indi ko fii ci Touba dëral na ci loo xam ni ku ko xam su bis bi ñëwee lépp loo xam ni da nga jàppoon dina jar ci yow nga bàyyi ko ñëw fii ci wetu Baye Ahmadou Makhtar ci wetu njaboot ki ànd ko moom tax euh, màggal ko ni nga xam ni ni la ko bëggee te mooy temps si muxu bi sunnati lépp aju ci sunna ci njàngum alxuraanul karim jàng xasaayidi sëriñ bi zikrullahi istixfar salatu ala nabi ak yu mel noonu yëpp ni ko Cheikh Moustapha daan defee noonu lay sàkkoo ci mboolem jullit yi ñëpp taxawee ci noonu màggale ko noonu ñu ci soññ ñëpp nag di ci woo ñëpp mbokk yi xarit yi jullit yi di soññ itam mboolem taalibe yi nga xam ni ñi ngi ci bitim réew ndax xam ngeen ni màggal gi fenn fu nekk ci àddina lañ ko fay defee kon nag ñi ngi soññee mboolem taalibe yi nekk bitim réew ñëpp kenn ku nekk fa nga ko daan màggale ak na ko daan màggale ngeen taxaw ci ba sëriñ bi amee ko ni mu ko bëggee sëñ Moustapha nag di soññ njabootu da waa ko sëñ yëpp xam nañu ñoom ñëpp su màggal gi ñëwee kenn ku nekk di nga bàyyi li nga doon def nekk ci waaye mi ngi gën a waat ñëpp ñu gën cee jàpp gën koo dundal gën koo taxawu ba Baye Amadou Ba ni mu ko bëggee mu amee ko noonu. ñoo ngi leen di fàttali bis boo xamante ne nii kenn fàttewu ko ñoo ngi leen di fàttali bis boo xamante ni noog ñëpp ci yem ngi bis boo xamante ni ca la lépp baaxee te dara mënatu koo yàq ndax sëriñ bi moo waxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha ni ko su ma demee Touba lu ngeen tàmbalee te danaa ko àggale waaye su ngeen yaafuusee ba dem ma dana mel ni demalu ma leen woon fenn moo taxoon Cheikh Mouhamadul Moustapha wax ni bis boobu yi sëriñ bi se mboolem ña ko doon gunge bu bis bi del see danañ ànd ak moom fanaan fii ku fi bokk fanaan ak ñoom suñ boroom jéggal say bàkkaar boo xëyee danga mel ni liir buy door a judd ci set wecc ci ay bàkkaar daana wax ni it yitte ju jar bañ a fanaan si Tuuba guddi asirinu muharram suñ boroom sakk ko di fàttali ñëpp itam na ko Cheikh Mouhamadul Moustapha daan taxawee ca jumaa ja muy njàngum alxuraan ma ca biir rawdatu ba ak mihrab ba ak njàngum xasida ma muy jës bu muwaahibu mu xaddimaat ak miimiya ci ñeenti koñu jumaa ji loolu ñu ngi koy fàttali ñëpp ndax fanaan yi mat naa bàyyi xel bu baax a baax muy fanaan ci luy gërëm loo suñ borom te noonu rekk la ko borom woote woon mu daan wax ni képp ku yor mbubb na la jaral jaay menn ma ku yor loo may jox it te am taalibe buy ñëw te yor lu jox ko ngeen ànd ruu yi laa soxla soxlawuma xaalis bi kon ñoo ngi fàttali ñëpp waaye daana wax tam nag koo xam ne tële dalaa gaar ba mënoo ñëw su guddee xoolal mbedd ma jëm Tuubaa nga sol ko ba fu la fajar fekk nga wàññi ko suñ borom sàkk na malaaka yoo xam ne ci bis boobu dañ gàttandu ñu bëgg a ñëw fu ñu leen fekk jox leen seen wàllu ñu wàññi ko loolu coobare suñ borom la tabaarakal la si bi yadihil mulk wa ala kulli shay'in xadir mat naa bàyyi xel bu baax a baax daan ci amal am mbale itam moo xamante ni bu jubsee sëñ Modou daana lu dëkk bi ndax ni gani sëñ Tuubaa yooyu la bëgg bu ñëwee fekk dëkk bi set daana wax it ku fi buub lu tollook tàggum piccum printemps suñu borom far say bàkkaar boobu itam jàpp nañ ko talaata di le premier ci mois de août boobu it ñoo ngi ciy soññi mboolem taalibe Sëñ Tuubaa yëpp kenn ku nekk ñu tàmbalee ci penc mi jëm fa gën a sori rek fexe ba dëkk bépp set ñu ngi soññi itam bu baax a baax mboolem turandooy Cheikh Mouhamadul Moustapha ci taxawaay yi nga xamante ni ni daan nañ ko taxaw ci bis bi fu turandoo nekk rek ñu ngi leen di soññ bu baax di soññ itam mboolem bokk yi nga xamante ni daan nañ ko taxawee ci sous région bi fu mel ni Mali ak euh, Côte d'Ivoire daan nañ ko taxawee mel ni bitim réew Italie ak France ñoom it daan nañ ko taxaw bu baax a baax ñooy fàttali ñooy ñëpp taxawaay yi nga xamante ne nii daan daan nañ ko taxaw muy taxawaay yu gën a mat yu gën a rafet. di fàttali bu baax a baax itam siyaaru asura biñ ci daan def ci sëñ Ahmadul Muxtaar te Ahbabul Mustafa daan ko jiite waaye noo ngi fàttali mboolem daayira ji aju ci kër gi nag tàmbali ci diwaanul muridin mboolem umma islam yi rek képp koo xamante ni jàpp nga ni ameel nga Cheikh Moussa daal ñoo ngi lay. woo ci ziar boobee ñu delloo ci njukkal Cheikh Mouhamadul Moustapha ci taxawaay yu rëy yi nga xamante ne ni moom la taxaw ndax Touba kat bu tollee fii mu toll ci ab taxawaay akub dayo tëdd gi fi sëñ Touba tëdd rek ko waral loola nag murit yëpp amel nañ ko ci njukkal euh, ndax akramani rabbi bila xuruji jismi min watani li nafi ahlil muduni ñaan la goo xam ne sëñ Touba ñaanoon na ko waaye ña ko mandargaal ba mu nangu nag taxawaay bi Cheikh la kon ñoo ngi sant bu baax a baax wasalaamualeykum wa